Yeah. Uh-huh. Yeah. Nyanko ni khe, nyanko ni saga, nene dade, dinyo diwaga, ande kikens, koko indaya, nyanko ni fe, pa. Papa mlacha na nyanko, yo khana kiso nyanko, yo bo khamon nyanko. explosion de saveur dans une même et seule bouteille fruits yi jambon ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo oh. oh dina yok sen katan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak nek si emballage yu civilisé tour ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison ña ngi ko ngi xeex ña ngi ko ngi saaga. jërë mënoo wàcc whatsapp bi tuuti. déedéet dans la sa sa vocal yi. loolu daal yow da nga yaakaar ni la vie se concentre kay dans la whatsapp. kay loolu nag ñun bu ñu dégluwul vocal yi. xool ku tontoon nu baaxul ñu orienté leen. waaw kay ne nu waroon tontu toxal kan moo koy def mun ko deful ñun. déedéet man keroog bëggoon naa parti waaye imam. yenn saa dugal yoo xamante ay sangu set. Hmm. lii waral ko duggal ci di wax sangu set naka lay sangu ci kóol da nga wara xamni ya compréhension bu nga am ñëpp tolo nu même niveau. ñànku daal ah ñànku. ah wa ñanku tay sa war nga di. eh nuy mëna ah, ah yow do wor bu nu bëgg a teel teel ci loxo jaam ba ngon jot. tay ñanku naka wal <laughs> fi mu am ah. mani suñu kay bu mu fermé imaam daal naa naa ne li ñu wax noonu ci groupe euh, whatsapp bi imaam loolu mi am na solo de leen dugg surtout loolu de leen dugg di pas surtout loolu añaan film euh, fin way may sama jàmm waay lan mooy film dem fin dem fin fin fin rek euh, gëdé fin dañ koy bindee fa fin dañ koy bindee ah fin dañ koy bindee ci eh, mo sa morom fin yomb na ah. da nga def f def i def n n f fi fii waaw n e muy fin fiw day fiw day am fin. fin ah, boobu nag ñun dana woor dégg nga seen film yooyu ngeen seetaan mu weeru koor jotee da ngeen dem ngeen ca xaj ngeen dem yeggal seen fay ngeen eh, kii. Eh, baal ñu ay xaar ah. baal ñu lan eh, nga may wax. ñett ñeent xaw waaye ñaar xam na ñett xaw ñett xam na. Hmm. ah yow siboon na xawaal. Hmm. waaye saa yu sib nga sib nga sib naa. xam nga lu ñuy def xam nga may leen ndox ngeen naan bu jekk rek. kii waxtaanee ko. loolu yéen ñaar xaaral ma ñëw. eh bul jaxase defal na defal na lan la. danoo woor. kii laay laajte Eva ndax mi ngi fi. Eva fii. Eva nekku fi de. nekku fi déedéet mi ngi fi mi ngi fi. Eva yaa doo bàyyi di bàyyi di absent wal ko président ne boo gisul Eva neen gisoo Eva. damaa xamoon mi ngi fi damaa yaakaar daal génn kon Eva la muy toog bëriwul. mi ngi fi mi ngi fi. soof ngeen ba bëgg a dee xamoo leen weeru koor xamoo leen ñàkk weeru koor sol lu gàtt trop xanaa boo la rus nit leen rus yàlla ngay wagar wagar nekk sa li ngay kii. waaw dimbali yow li la metti ko yow. li ta soxla moo la jàpp daa am ay raf daa am ay raf koy seet. Eva laay seet. ah yow it Eva rek ngay seet Eva kër gi moom kese dëkk fii. ah. waa ñaata Eva ñoo fi am. kër gi man Eva laa tudd sama surnom Eva la. gerte na def jaay. jërëjëf jaay jaay jaay jaay. tey moom dañ laa defal surprise. jaay lan. mbetteel la ah ndoxu mbokk. damay génn. foo damay génn damaa am dëj léegi. waroo génn tey moom loo mën a jàpp ci àdduna bay. ko war a bàyyi. alors dañ laa defal yëfi ngéwél. ndaanaan day bett ndaanaan. ndaanaan bi mooy bettaat mais un professionnel da ngay avertir nit ki avant ngaa ñëw si moom. léegi yow xam nga ngay def. premier place. bu dee kër gi suñu kër la. doxal sa yitte bàyyi ñu toog ah ñu amul problème boobu garab gi moo ni moo ni moo ni aar. lii la si lii la si <laughs> ah, waaw lii. dafa dafa ni man la dama laal lii. waaw li saay saay la. ah sama kër lu nekk dina am. ku nekk dina ma seet xaaral ma ne ma ñëw ama daal sama daal. lu nekk dina fi ñëw. fa la xonnee rek. yow bu nekk déglu bul ma wax lu may def. lu nekk dina fi ñëw. bu nekk maa ko am. Fata mënoon ngaa dem de. de moom de ah. waay waay maîtriser nañ ko sa garab gii ni mu féexe. macha allah kaar koor gi. kaar de. ba yaa ngi góorgóorlu. ma soo soo. ni nga gaawee ci dog koor. <coughs> ak a ragaloon koor nag. dinañ dugg ci groupe whatsapp bi dinañ dugg ci groupe bi. ah te bàyyi vocal jàmm. réew mi du ngeen ko déglu ah, waaw. Hmm. lu fi jar xaaral may ndox ngeen naan lan la ndox mag nu jum ñu tonn nun yow mii sa bët yi ay bët fenkat yow laa jóg yow yow bul waxal ah, sa bët yi non sa bët yi sa sa bët mu la foo teg loolu sa bët yi moo yamul benn place xanaa xamoo enquête dëgg ba lay enquête da lay fixer yeux dans le yeux waaw léegi man nee naa la xujj moo tax ngay fet mu naturelul xool bi moo naturel dukkar lan la dukkar loo gis sama bët yi nekk loolu yow nitu kay waaw ini indi na ku nga gisee. dëgg yow waroo waroo jël ñànk mi nga xam ne wérul. waaw mm. fekk ay magum jëm. Mm. wóor ba heure bi mm. muy may ndox. Euh, dëkk yow da ngaa naturel xam nga ma da naturel la. waaw yenn saa ñànku day taxu fii wax. nga ne ma gërëm na la ah. nga ne ma sa ne. maa ko wax maa ko wax maa ko wax maa ko wax maa ko wax maa boo fi leen gis nga ñii dañuy naan lan la xel gën a ah. ñii puso bu réer la hmm. mag dina ko for waaw gone dina ko for man loolu laa jàpp ne du kuréel loolu lay wax dof du ko for waaw kay dafa daa dof muy jeex waaw baax kii bu nekk dof bi jeex du for waaw xanaa waaw faay bi ngay tourné bopp kii bi ngay tourné bopp kii bi yaa ngay fàttaliku boobu boppam bi boppam bi ngay tourné loolu ban at la woon sax ak ban heure ak at man xam nga quoi mooy bi ngay tourné bopp bi jàpp boobu tourné ko kañ kañ man kañ laa tuna ak man kii ni ñu ni ñu ma ak moom pataas mbaay mi est-ce que mës naa ci sama loxo teg sa bopp. ah. kañ la kañ la benn yoon kañ la am ku lomb mu di ko xool bu bëtam yi ci biir ci biir lomb bi nga tourné bopp bi. yow daal. ma xaaral bu leerul euh, ma leerul nànk rek. ñànk mi day ay waxam day déliré rek. ñànku daal da ngay déliré rek. da ngay déliré rek. papa xaar mu utal leen ndox mi. day xaar xaar xaar mais mu utal leen ndox mi. ñànku bi déliré waaye. yow maa ngi lay doog a dégg. nga déliré rek bul dégg de. ah loolu moo tax xale bi jigéen bi ñoo ne salaamaaleykum. Ah. balaa ma kaax maaleykum salaam ñoom ñu ne ma salaamaaleykum. daanu nga daanu nga. ah kon yéen yéen. ndër fa kunu kon yéen. xale yooyu fii laa gis mu dugg. Mhm. alors mu ngi ci kër Eva lay seet. ah kon yéen lu ngeen ñëw fi naan ma gerte tey dañ laa defal surprise seet la ay kàcc kese la gëdë lan la seq nañ relation bu ne hmm. ah. ñun suñu mbir hmm. du ñàkk moo koy lijjanti moom ankay mais ñàkk bu président la seen mbir fekkee lépp sañ na taxaw ne ma fekke naa nangam papa ah, Adama yow pataas yi amul sulo nee na doom ja nday ja waaye doom ja bàyyi dafa jekk fi ne nii doom ja bàyyi dafa jekk fi ne nii man duma naanu ma de Fapal jàppal ni teel teel ma la dinaa téye pot bi nag teel ni téye naa pot bi Fapal waaw eh, naanal. lan moo tax may naan doomu. Papa Nas naanal. guuxal ko jox la bu yàgg naanal. Eh, bul ko jox benn stratégie yow naanal. naanal. léegi lan moo tax may naan doomu. naanal doomu. wala déedéet jox ko ma dugg eh eh yow laa ko eh sa xalit bi wax ko mu delluwaat ci biir toog foofu ah. ba ndogu jot. lii loolu. bu mu génn kër day génn. waa eh kii di ñibbi nga naan na dem toog bu tax muy dem toog xam nga la laa bëgg nga xam. booy bi day génn. xam nga la la moom mii kii. waaw laaw na demaat toog ci biir ba ndox jot mu door a génn. ñàkk xaaral ah. dafa lu tax loolu. xaaral rek ñàkk sa wax day fëkk ndax. Hmm. kii dëkku fi. tiens daa ñëw mu ngi koy gunge ma ñibbi bàyyi ko mu ànd ak copinam génn. et eh, alors léegi yow. Hmm. lan moo tax ko ngeen jox mu ndox ma naan. ba pare ngeen ngeen bëgg kii toog ci. da ngaa njaaloo moo tax njaaloo day dog ko. fan laa njaaloo da ngaa xool loo xamante ne daggaltu la rawatina nga dugg si intérieur am. man maa njaaloo ah. yow kii nii boo gën a porte porte contraire. eh sawa eh, eh, eh, eh yow laay waxal. sawa eh yow laay waxal. Ah. kii bu mu romb fii na dugg ci biir. la ma dugg ci biir. xam nga ma dugg ci biir. la ma dugg ci biir. ñi mu romb lépp xool nañ ko. waaw ah. Hmm. Hmm. suñ ko su leen lombaatee ñu xoolaa ko beneen xool. waaw seen xool day dox. da ngaa neex. na toog ci biir. léegi ba ko teg yoon bi. sa waay yow ay defal naa yow ba nga ñëw ban nga jaar. nii laa awoon bi may dugg. waaw nii laay defaat bi may ah, dugg eh, eh, eh, man mu toog sama taatu gar nit bu duggee dugg ko gis. Sylvain du ma ko Sylvain xool ma xam la yow laay wax yow. waaw yow kii xam yow kii xam waaye xam nga bu baax xam nga laa bëgg mooy na kii delluwaat ci biir ba ndog jot te aussi avant bu lii bu mu ko solati di dox. ci lii yii ana maandu. lii yii lii yëpp. waaw ah. maandu maandu lii lii rek boo ko ko. paa yow eh. nii nii yaa ngi tooñ. comme que koñ bi ñun ñoo ko ñaay. Mm. te ñun xam nañ yoon yi. Mm. kaa ñu dem. Mm. ma awale la rukku jinne nga. waaw ñànk solo xobi gaaw bi bàyyi ko. eh yow kii bi yow munoo bàyyi sa tóore yow ñànk lii la taxawal eh, ah. eh. leer na. sa waay bu ma bu lay wax yow baanu seet ah booy booy booy yaa ngi lay waxal bu ma fontoo xam yaa ngi yaa ngi sax sa tàngoor bi waxuma na wax na ma ko. yow yow laa ko dafa nang dafa nang rek yow mu sës. kii jigéen la. waaw waaw ah. nun noo koy protégé. sama bakkan bii. waaw jaay tey ndax ki jar na ma. waaye eh, ñoom da ngay amaloo eh, amaloo. da ngay amaloo amaloo. amaloo yow ñëwoon. man de joxe naa sax. donc donc si soo leen eh. saa weel. saa tas. ñoo ko eh, ko ngay jël. ñoo ko mel ni ñu jàpp. Ah, eh, su ma doolaatee nga yóbbu ay biir saa ci doon taal sama xol. ñoo ko mel ni ñu jàpp. mooy sama élève seen doon seen sama élève. waxal iPhone. ay tas la. dëgg tas la. iPhone tas la iPhone laa wax. ñoo ko ñii moo xam ne bàyyi leen. ñoo ko. bu leen daa gis sama buntu bi de. ñoo ko. Ah! ñoo ko bàyyi ñii moo xam ne. Yeah. Uh huh. Yeah. faire nyankogi saga nene dade dinyo diwaga andaki 15 koko Idaya nyankogi fepa babam laca na nyanko yow xana nyanko yow nyanko Vito Cocktail, une explosion de saveur dans une même et seule bouteille. Fruits yep, ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi oh dina yokk seen kàttan boole si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito so exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yahu gune ak mag lépp nag si emballage yu civilisé te ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 240 41 06 06. Vite au jus, le jus fait maison.